kenn ca gaay laajee na ma loo yëg ci jumaa ji ndamal murit yëpp la fii ci ndakaaru ma la leen Cheikh Ibra laa ci yëg ma ah, waaye fii dañ fiy julli ma ne ma ne ko waaw mu ne ma ne ko waaye xam nga li ndam la mu ne man Cheikh Ibra laa koy jox ndax bu esegoon moom la ñuy joxoñ waaw mooy looloo am te mooy lu leer loolu du ay du ay këyit ak i loolu loolu loolu wax la ju làmmiñ la bàyyi ko jugewul fenn du xam-xam du lu leer la su bàyyi ko ci làmmiñ nii rek yow mën nga ko wax keneen mën na ko keneen mën na ko wax du lu ñuy gëstu jeeg lu ñuy jàngi dama ne bu esegoon Seex Ibra la ñuy joxoñ yéen xam ngeen loolu kon man bu ndam ñëwee moom laa koy jox faralu ma kenn Seex Ibra Faal laa faral mhm. lu waaye am na jël téye te ba maag moom ndax man waaw ku am war na maa sant te nag dinaa la wax leen lépp lu ma la wax ci Cheikh Ibra ku Cheikh Ibra yar moo ma ko wax mbaa ku Cheikh Ibra yar baayam